ñoom tey li waa yeewi amoon tey ñoom bu ñu ko amoon tey kon réew mi kenn du dégg waaye yeewi amuñu li waa bennoo am de waa bennoo ñoo gagné partout parce que boo xoolee mais seen communication ci gagné bi sax feeñul ndax dañ jël yëpp concentré ko ci dakaar ñoom dañoo bàyyi seen xel yëpp ci Dakar te wax dëgg yàlla euh, dakaar euh, li fi jot a am ni wax dëgg yàlla man li ma ci gis daal moom mooy ñoom il faut ñu def defaraat bu baax te waaye yeewu yeewi tamit def attention attention au conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci yenn mairie de. parce que conseil municipal amul salaire te bu waa fekkee waa bennoo dañoo yor xaalis mën na ñoo dem ba jënd ay conseil yoo xam ne yow maire ba da ngay nekk xott buy taxaw rek loo teg ñu dëpp ko délégation spéciale dañu lay indil nga daal dafay tëb fii nag ay quelques mois di nga gis ay maire yoo xam ne ay délégation spéciale ñoo la fay remplacer ba nga la wax li bindu ko ah waaw bind ko di nga gis ay maire yu ponkal yoo dégg yoo xam ne gagné nañ seen gox di ciblé waaye fii ak 6 mois délégation spéciale ñëw parce que lu ñu teg conseil dëpp ko te bu yàggee nag wax dëgg yàlla day bloqué procédure euh, développement dina jëmale kanam gagné ba pare loolu loolu ah, mais politique la rek xeexante la parce que am ñoo xam ne mënuñu digérer ba tey seen i te di lay bloqué comme fan nga ko gën a yaakaar li ma ko gën a yaakaar maa ngi koy xencu ci côté géejawaay Ahmed Aïdara maa ngi koy xencu foofu xëy na Dakar sax dina xaw a kii mais bu fekkee ne Ahmed ni mu amee ay conseillers bennoo ak conseillers yi nga xam ñoo nekk waxke naa nag ñoom directeur euh, RTS bi ñoo ñëpp dañoo ànd manko ñoo ëpp Ahmed Aïdara ay conseil donc lu Ahmed teg mën nañ ko dëpp ay conseil Ahmed bu fekkee bay naxante di foo di kaf di ree ba nekk ñëpp jàmm xëy waaye bu fekkee doole rek la mais gëmatuma ne Sénégalais bi léegi conscience mën nañ ko jënd ci moom mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne way boobu ñu wax waaye réew mee génn leen seetaan bu ñu génnee seetaan ba ñuy wote wotewuñu la ko dañoo seet keneen ku la neex wotal ko lekk sa xaalis yow dem ànd ak ki bëgg mm-hmm.